Tuubaa ngi woote bésum màggal ga waaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ Tuubaa ku xër la ci naga kii ndaw nag lan woo màggal si leen màggal Tuubaa ga ñépp a naga kii ndaw ñépp asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu Eh, Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gën a miin sëriñ Baara Doli maa ngi lay nuyu ci turu sëriñ Modou Mbacke si mii nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ñu ñu teg muy doomi sëriñ Moustapha si sa mbokk doomi sëriñ Malick Bassine di la nuyu ci turu sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma di la nuyu itam ci turu Cheikh Mahamadoul Bachir moom sëriñ Abdoul Khadir nuyu la ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy Serigne Touba di sant yàlla nag bu baax di santaale mbooleem ñii ñu àndal ñëpp ci ñëw gi ñu ñëw ci dëkk bii nga xam ne moo di Daaru Salaam Doyoly muy dëkk boo xam ne li tax sëriñ bi tànnal ko boppam ndax ñun duñ jóg mukk ci suñ coobaree bopp saa yu ñu waxee nañu karawaan bi de dañoo bëgg mu dem bi sàngam waaye dëkk sàngam ak dëkk sàngam ak dëkk sàngam lañ leen tànnal ngeen dem fa loolu sëriñ loolu taxaa da koy xam Cheikh Mahamadoul Basir soog na koo wax wax ko Serigne Cheikh Abdoulaye